aw ah yow di nga seetaan série sénégalaise yi. waaw dina am na yu ma siy seetaan de waaye instant bi ak fois bi bu ñu wàccee bu ñu sonnee dañ koy jéem a kalewaat si internet bi rek. mais yow ban série ngay seetaan. man li may gën a seetaan sa fàttewu ma ko. <laughs> mais am na boo xam ne quand même bàyyi nga ci xel di nga ci concentré ah mais instant bi daal mooy loolu pour le moment nii moom comme dañuy teel a xëy bu ñuy wàccee dañuy profité nekk di reposer wu tout ça mais après moom. série bi ñu a seetaan moom d'habitude man Sen TV dama koy seetaan. des fois damay feuilleter rek ba daj waaye des a dóor nag. feuilleton ah del consommé local ñoom pot et marichou wiiri wiiri yooyu. loolu dama koy seetaan pot dama ko kaa yéene. ma waay. te lan moo tax nga yéene ko Eva nañu lu tax dama ko koy yéene xam nga xale yu góor yi da nga leen di respecté ba pare di leen defaral xamuñu leneen kan moo acteur préféré. Euh, ma Momo. mais tamit lan motax tax nga war a tànn moom. dafa am caractère. moy lol ak Eva tamit était. xale jigen dal ko koo wax mi ne non ak Eva parce que c'est une femme battante. genre que dafa woné ni carrément que ni tu peux être femme au foyer en même temps que ni tamit dula téré nga nek di liguey comprendre nga moy lol nga dimbali sa borom keur jappalé ko et Marichou waaye rôle bi dal rafet na. tey boo amoon looy wax euh, Eva wala Momo ban ban message nga leen di lancer. euh, euh ma xol pour cadre Eva. xanaa ma ne ko mu jéem a rek war a mun a jéem a baal pot rek delluwaat ak moom. loolu daal nga Momo nag loo koy wax. pour Momo ma ne ko mu jéem a xëcc présidence bi rek mu nekk président. <laughs> ko yaakaar naa ne Momo ak Eva dinañ dégg sa message. benn problème. jaajëfal nañ. merci beaucoup nekkal ci jaamu. sama xarit ñoo daa mel da ngeen jógee école jaar ci foire bi ban école ngeen di jàngee. Fadial. Fadial ngeen di jàngee. waaw. mbaa yéen a ngi série sénégalaise. série sénégalaise waaw quelque nii. ban série, ban série nga seetaan. oui. wiiri. Wa eh ma da ngeen koy may mu wax ba pare. dëgg fa ne yalla lifeline lay seetaan. lifeline lan nga ñu mëna wax ci lifeline. lifeline théâtre bu neex la dal xam ñu koy ñu koy défé Amérique ak Sénégal fi. gis nga ne gis nga ne mi ngi yeete théâtre tam buy yeete la ça fait de banditisme ak yooyu. yow kan mooy sa acteur ak sa actrice préférée ci Lifeline. ci Lifeline. paa bi xaw ma Abdou la tudd. Abdou Abdou ak Mariem. ak Mariem. jaajëfal nañu ku ci toog. waa ah Miss yow noo man aji. aji nan. aji Roqe. yow di nga seetaan série sénégalaise yi. waaw. ban série ngay seetaan. Idole. Idole lan moo la neex ci idol c'est la mais série au monde. ah bon tu trouves. ban kan mooy kan mooy sa acteur ci Idole. Hmm. Margot Margot. Margot lan moo tax Margot neex la pourquoi nga choisir margo parce que Margot dafa bandi. tey yow boo amoon message booy lancé margo wala loo koy yóbbante pour mu dégg la lan lay doon. bonjour. bonjour Margot ça yaa ngi ci jàmm. Euh, te. te créateur bi yaa koy neexal. moom margo daal loolu nga ko am loo koy wax. waaw dina la dégg ak jàmm ak salaam. jaajëfal nañu maaleykum sëñ bi nuy nañ la. waaw ñu ngi leen di fay bu baax. tur bi naka la. Ndiouga la. Ndiouga yow yaa ngi seetaan série sénégalaise yi. waaw ñu ngi koy ñu ngi koy seetaan bu baax. ban série ngay gën a seetaan. Euh, Pod et Marichou daal. Euh, Pod tey loo amoon loo ñu ciy wax lan lay doon ci Pod et Marichou. Euh, maanaam ñu ñu mooy vulgaire yi ciy génn quoi ñu jëm ko wàññi quoi parce que des fois nga toog ak famille bi di seetaan dégg ci ay moo ay góor moo yoo xamante ne mun na ñàkk quoi. kon gis nga ne pot emarichu dal daal au lieu mu yeete day mi ngi yak wa mi ngi yak ci benn côté. tey ci bir pot emarichu yow kan mo ci sa acteur wala sa actrice préférée. wa Eva mom sama jigen la mom moom. pourquoi choix bo pourquoi Eva. waaw parce que sama nitu demb la ma ngum demb la won tay do a ñew wa lan la def tay boo amone message boy lancer Eva lan lay doon. wa diko wax ni yoon bi mu nek bobu la rek mu japp to bàyyi quoi inshallah diko ñaanal tamit mariage am bi ñuy wajal yàlla defal ko ci jàmm waaw. kon naa yéen a ngi waaj la 15 daal. waaw ñu ngi koy waaj bu baax. du yomb waaw du yomb. jaajëfal nañ lañ jógaa. na si ziar naa. asalaamaaleykum salaam ñu ngi lay dolli ziar. tur bi naka la. Soukeyna Touré. na yow di nga seetaan série sénégalaise yi. waaw des fois maam yi ma seetaan koj ko tuuti rek. ban série ngay seet. instant bi Pod et Marichou laa gën a intéressé. ki nga gën a intéressé Pod tey ban jàngat nga ci mën a am. Euh, juste ñu ngi conscientiser nit ñi Euh, ci jigen nan la wara gérer foyer aussi tamit ñu ngi def tamit ben éveil de conscience muy li xew des fois aussi ci biir euh, ci biir société bi ci bari ci biir pot et Marichou tay ñan ñoo ci sa acteur préféré est-ce que am ci acteur préféré def na ñom ñep da tay di nga am ko xamné gis nga ko ci au moins c'est attirer na sa attention quand même ah surtout Marichou Marichou ni mi défé neex na ma pourquoi Marichou ah parce que mu ngi toppatoo jëkkëram mu ngi xool liy neex jëkkëram toujours mu di ko def sa jigéen loolu rek la war a def. gis nga naa ne daal Marichou mi ngi jàngal xale jigéen ñi ñu war a sëy. bien sûr loolu moom mu leen di jàngal bu baax. boo amoon lool message booy lancé Marichou lan lay doon. ah xanaa mu continuer ni muy joué nii rek yàlla na nekk réalité bi ne noonu lay defee. jaajëfal nañ. rek mu baax. jaajëfal ok merci.